asalaamualeykum gars yi yéen a ngi Mediactu ah. instant bi nag tey moom dama ñëw pour wol leen benn vidéo boo xamante ne pour gars yi bàyyi si xel quoi ñu xam ne actuellement ñun créé war nañu quoi affaire yi affaire yi méttiwul xool leen hélico yi nga seen nii man dem naa ba Bordeaux fekk benn tubaab koy defar monte ci moteur deux chevaux mu naaw man projet yëpp mi ngi sama bopp bi pourquoi pas ñun ñun lox ma ñu defar deux comprends yàlla xam ne billahi wala loolu mi ngi sama bopp bi defar defar jour xëy ñëw ma defar fi benn hélico wala ma defar fi benn avion mun naaw parce que oto bi ma koy dafa fii tàmbali fii laa ko tàmbali am ñu ko ñu ko ñu ko saboté lii du baax mais man dama gëm may gëm nekk ci defar et puis sax ñooñu sax gën ma jox courage la fait que ñu saboté ko rek ñu saboté ko rek man tam ma mel ne gaynde ci kawam waaw léegi fii moom euh, moteur bi lañ fi def moteur bi lañ def fii moteur bi dañ ko ci derrière lañ ko def soo gisee ñu def ko ci moteur bi derrière nag ginnaaw dañoo nekk Afrique amuñ doole non doole ji amul bon booy defar da ngay defar lu dëgër nga xam ne nii pour Afrique la donc moteur bi li ñaan quartier bi amul accès ci suuf si tey soo dawoon ba dal ci benn xeer wala benn brique wala sax même benn bloc moteur bi moom dara du fi yàqu réacteur baa ngi nii lii mooy réacteur bi lii mooy batterie bi baa ngi nii bi même ci bi ci kaw la nekk par rapport oto yi xam ne day dikk suuf léeg-léeg mu dagg bii amul bii moom moto côté moto moom da ngay dawal macha allah fu la neex dóor loo neex dóor ci xeer dóor dóor def dara donc oto bu am sécurité lañ defar fii. saa lu ma bëgg a rek moom mi sama biir bopp bi moom. su ma xëyee damay defar facilement man aw ma pour defar difficulté aw ma ko parce que oto boo defee ci trois mois ku mosul defar oto buy daw kooku amul difficulté bi te oto bi incha allah rabbi dañ ma xaar ci beneen naa beneen bu daq bi mi ngi ñëw parce que incha allah rabbi man euh, du ma toogu ma man xaaruma ndimbal eh, eh, kenn waaw xaaruma ndimbal kenn li may def nii man maa ko bëggal sama bopp xaaruma ndimbal kenn maa ngi yàlla def na maa ngi liggéey maa ngi fotal su ma demee ba équilibre rek naa tàmbalaat beneen man naa ko dawal nit daal sama kaw boobu nit daal sama kaw xëy na police yi ñu ngi koy toléré kenn waxuma dara mais su bu nit daloon sama kaw par exemple dañu am ah, oto bi ban këyit la am def naa dara vraiment def naa dara war nañ ci mën a jàpp daal na war nañ ci mën a jàpp ma laaj bëriwul këyit ñu si formé benn de këyit ba nga xam ne a Sénégal la fekk benn Sénégal na benn affaire tey affaire bi ñu ko Dakar bu faa ñu ko Tamba bu faa ñu ko kii dañuy xam ne Sénégal bi li mu defar nii du fooyukaay